386 45 69 ña nga foofu ca Touba Daara Khoudous 9h ci suba la ñuy ubbi ba 20h ci ngoon un transfert de argent muy wari joni joni ak ria képp koo xam ne si ne bëgg nga crédit yi dañuy jaay orange ak tigo ak expresso waa kër soxna astu jaxate daal di ñaanal Serigne Mountakha ba Bassir mu yàgg fu lool te wér ak waa Mint service léppay baax sëñ Ndaw sëñ bilaay mooy baadoola sëñ Daouda mooy baadoola sëñ Daouda yaay war wóoro te yaay digle koor gi fii ci koñ boo xëyee sa kër ka fay tàggoo waaye balaa bi dee nga dog eh, koor gi metti na tey day koor gi dafa tàng kay tey gi daa woor nga sax man kay damay woor moom man moom man moom damay woor moom man koor gi yëpp dama koy woor koor bi dama koy woor de waaye. dama tàng man lu ma jaaxal. waaw oh. man damaa bëgg man xale yi nii xale xale bi comme ça ñun ñii. waaw oh. damaa bëgg ñu laaj ko ñu laaj ko bu ñu wooree bu ñu bu ñu wooree ba tàkkusaan ñu dog ko daggat na. Um. wala wala baxam xam ne ba lan la. waaw oh, loolu moom jot na pour ñu laaj ci bàyyi dara moom. ñu ne dañu woor moom yàgg rek ñu dog suñu koor loolu. Ah, moom daal li ma lay digal mooy. waaw. waa dama bay dugg àjjana. waaw bu ma fàtte. ah man ka xam nga ni waaw. ah doom na ngeen def. ah waaw waaw xale yu baax yaa ngi nii. gone gone gone am jom a ngi. am jom nangoo woor gone am jom. na ngeen am jom a ngi nii. moom kay moom nangoo woor am jom. waaye nag yàlla leen di fay. Mhm. góorgóorlu leen rek. waaw naka it tey. tubaab kàlla kay yéen a ngi woor. ah ñu ngi si xale boo leen gisee xam ne ñu ngi ci. góor waa góor. li ci des bëriwut. Ah, li ci des bëriwut. daanaka buñ toll nii buñ ci doxalaatee ay ay ay fan rek bu ko defee dañuy daal di lekk di naan. waaw ah, papa sëñ Ba. waaw daa daa lu ma lu ma la bëggoon laaj. lu mel nan. am saa ñun xale yi nii. waaw dañuy do dañuy woor ba takkusaan wala ba tisbaar ñu doog suñu tool. ëpp naa def. dara benn question laaj na laaj bu am solo. Ah, laaj bu am solo ngi noonu. Ah, jërëjëf. Ah, man boo gisee gone yi ma fonk leen. lii a tax ndax dañuy jéem a nap nabi ci koor gi. ba pare dañuy jéem a gëstu seen diine. waxal ak moom waxal ak waaye nag xam naa ne laaj boobu moom. daa koy jéem a delloo seen njaay mii. yow xam naa ne moom. moom moom moom moom a gën a xóot àll ba moom. waaw yow yow loolu gën a da nga cee xam-xama. déedéet déedéet wallaay déedéet wallaay kooku. waaw ñun de moom door fa kàlla macha waaw. ndax eh, mani gone gi man la ko laaj waaye yow laa ko delloo ah, kat kay dégg nga eh, may ma sut rek yaa ma gën a sut alluwa dinaa la tontu ma xam ne tontu naa ak ah, góor cara benn question hmm. ndax koo xamante ne ni yaa ngi woor ba digg ba ca nga ko dog waaw yaa ko tey moo ko tey déglu ma rek waaw ndax mi ngi laaj eh, weeru koor waaw ndax xam nga weeru koor waaw waaw moom daa bokk ci waaw ah, weeru koor wi ñu nekk waaw ñeenteel bi fonk lislaam la waaw saada taani mooy baati seede yi waaw iqaami salaat nga taxawal julli bu dëgg la sakaat nga nat asaka am nañu ci dul jaar ma ni may déglu ma rek sawmu ramadan mooy hajjul bayt waaye ba ñu bay àgg mooy ah. booy bii li mu laaj dama la jëm ko jox exemple yu ndaw na ñëw magum jëmu mu woor ba digg gone la la wax ma ni gone gu woor ba digg ba cëg waaw kay magum jëmu mu woor ba digg ba cëg waaw nga dog sa koor ah. yaa ko tey toj lu banam rek may ma tuuti rek hmm. xamal nu ñu la war a def fekk la fa nga nekk toj salu bon. amul ku tëju fi nga am na. ah fële boo dee. ah malaaka yi toj correct toj salu bon. waaw ah, jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf saay saay la waaye xam-xam la. dara man question waaw góor yi kay baax ala kay baax ala la xaarim kii dem maa karmat moo tax xëy wóor ma da ngaa lar mat maa karmat boo karmatee nii nga koy doxalee yow ah waaye añ ngaa mel noonu sax waaye te tamit mu ne ma damay añ mat eh, eh. ma damay eh. Eh, ceeb bu mel nii war na koo yor dégg nga maam di ko lekk ci waxtu wi ah. waaye loolu lu mu doon. Oh. waaw xaalis loolu la bu. Oh. nijaay. waaw nijaay da ngaa dem. waaye yéen xaalis mi dem nañu sama nijaay de. Oh, ay man fu ma jëmoon xaalis mi fu ma jëmoon moom. waaye yow da nga doon lekk <laughs> tàggoo